service des populations. xibaar yi fii si UCAB FM Pape Cheikh Mbaye mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu dal leen jant ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba xibaaru digg bëccëg la gën a fës ci xibaar yi bokk na ca màggalu poroxaan ñu nekk ci wàccaay bés ki tey kon rek jamono ji ñu toll ci wàccaay wi kon bés tey lañ ko fas yéene amal fan lañ ca toll nag évaluation ba doon ndaje mu mujj mi nga xam def nañu ko ba noppi am mbégte lañu ca am danañ teelu kàddu yi nga xam ne kilifa yi fësal nañu ko ci biir jotaay kër soxna Bali Mountakha doon fa amal ziar kàddu yëkkati ko fa moom itam danañ ci dikk gën ko yaatal di Ahmed Sy moom itam ma nga ca Poroxaan ngir rek doon siyaar si xalifa général di murid Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou danañ ko gën a yaatal CDP amal ab dox boo xam ne kon ab caravane la ay jigéen ñoom ñoo di ay sage-femme ñoo ko amal naka la bëgg rek mooy gën a jigéen ñi ñu gën farataal nemmeeku seen wàllu wér-gi-yaram rawatina nag lii di cancer col de l'utérus ak yeneen ci ay jàng jàngoro Moustapha Ndiaye danañ ci dellusil ci biir jotaay ki xibaar yi lay doon mbokk yi ni nu ko baaxoo alxames bu jot alxames transport li gën a fës ci yéen na ma këmal jotaay bi nees tuuti ji koy ci faram fàcce gi ndeem soob na sunu borom xibaar yi fii si UCAB Pape Sayar Mbaye ci àddukaay gi ak ci wàllu màcc mi ko fa féete di Cheikh Bey yéen askan wi ci déglu bi rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabir mbokk yi tey jii di alxames ñeenti fan ci weeru wolof di rajab wala ndayu koor ci atum junne ñeent téeméer ñeent fukk ak ñeent ci gàddaay gi ñaar fukk ak benn fan ci weeru tubaab di janvier atum 2022 rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba 14 heures di ñaari waxtu fanweer ak ñaari simili moo bootu ci kawam xibaaru digg bëccëg bi Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi dal leen jàmm ci rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam daaru alimul xabiir xibaaru digg bëccëg gi dañ koy doo rek màggalu poroxaan gu jamono ji nag ñu ngi ci wàllu ko wàccaay wi bés ni ki tey lañ ko fas yéene amal mu war a doon ñaari fan ci weeru février atum 2023 wàccaay wi nag ca lañu toll tax na kilifa yu nguur gi ak kilifa yi ñu denk lu jëm ci wàllu taxawu màggal ga ñoom nag doon nañ amalu po jotaay ginnaaw ndaje yi ñu fa amaloon doon CRD ak CRD ba réunion d'évaluation doon jotaay bu dañ ci doon xayma nag mboolem lañ fa jotoon a waajal lañ fa diggee woon lan lañ ci def lu ca des ak lan lañ ci def fu ci ab taxawaay loole nag waxtaane nanu ko ci teewaay gouverneur Kaolack waaye itam Serigne Bassirou Mbacké Porokhane mi nga xam ne kon moo jiite comité d'organisation màggalu Porokhane ga jotaay ba bañ ca noppee la mu ca tënk moom Serigne Bassirou Mbacké Porokhane ñu teewlu ko. li nga xam ne état bi war na ko cee def. lim ci diggee ci def ak li ci des liñ mën ak luñ mënut. Euh, gouverneur Kaolack ñëw na ànd ak mboolem chef de service région bi ak département ak préfet Nioro ak sous-préfet Paoskoto ci suba ba tey lool ci lañ nekk mu nga xam ni moo mottali daje yi nga xam ni amaloon nañ ko ci Porokhane muy CLD ba ak bi ñu amaloon Nioro muy CDD ba ak CRD bi ñu amoon Kaolack euh, daje bi nag alhamdulilah niru na daje yi nga xam ni weesu na ndax ci li ñu seetlu daal mboolem ñi nga xam ne dige woon nañ ko te mu jot yi ci bare bare def nañ ko am na yu ci des ba waaye am na ci yoo xam ne yi ci ëpp wax dëgg yàlla def nañ ko ci wàll yi nga xam ne euh, moo ëpp solo ci màggal wàll yëpp am solo waaye da ci am yoo xam ne mënut a ñàkk xam naa gouverneur dana ci ñëw ci kanam wàllu euh, sécurité di diggante genn genn gendarme ñu ko seq ak police ak police ak GMI Euh, wax nañ kenn ku ne la ko waat fu mu war a yem ak fu muy tàmbali ak la mu war a def def nañ plan de circulation moom da ko gis macha allah defee nañ ko ci anam goo xam ne gi anam gu mucc ayib la ci këyit yi mu dese nag jafe gi jafe gi nag ñëpp la du ñoom rek waaye ñi nga xam ne ñuy jëfandikoo yoon wi euh, ñoom ñoom ñoom ñoo ci ëpp solo kon nag ñu ngi leen di ñaan rek waxtu bu ñu gisee plan de circulation bi nañ sàmmanteeg moom waaye waxtu bu ñu gisee itam ñi nga xam ne ay tenue lañu sol moo xam gendarme yi nga xam ne ñooy taxaw ci yoon wi ak Porokhane ak dëkk yi wër Porokhane ak ak ak ak police yi nga xam ne euh, GMI yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi taxaw barab yi nga xam ne moom la ñuy saare ñu sàmmanteeg lañ leen di wax te xam ne seen jàmm rek lañ bëgg ak it leen tax a jóg ñu am ko wàll yi des tam noonu wàllu ndox mi euh, yaakaar naa ni société yi nga xam ne seq seq nañ Euh, yéene ji nga xam ne am nañ ko ak jëf yi nga xam ne euh, fas nañ ko yéene def amoon nañ sax lu ñu ragal ndax dañoo jékki ba fan yi rek ñoom gisaguñ lu bokk ci hydrologie gisaguñ lu bokk ci ONAS waaye alhamdulilah démb seen directeur national ñëw nañ fi wax nañoo noonu wax dëgg yàlla fekk na noonu noo yàkkamti rek waaye ñoom waajaloon nañ lépp ba nga xam ne li ñu wax buñ ko defee rek moom itam ñoom ñëpp a yem Mm, kenn ku ne da nga def la la war te boo defee la la war rek daal di wàcc wàllu courant bi macha allah Senelec moom gouverneur doon na ko wax léegi ci euh, le le sëñ bi waxoon Senelec Senelec bu njaareem waaye loolu fii la ko jële fii la fii la ko jële fii la ko dunde mooy at yi yëpp màggal Porokhane Senelec benn service dugg ko fi man li nga xam ne diggée nañ ko lépp danañ ko def te lépp loo xam ne dolli nañ ko ci ndax ab sëriñ moom neexut a liggéeyam la mu bëgg rek lay xam Euh, waaye lépp dañ ko ci dolli kon ñoom amuñ leen loo xam ne moom lañ leen di moom lañ leen di waxal daal wax dëgg yàlla lu lañ leen daan wax rek moom lañ leen di wax ndax lañ daan def loolu rek lañ def ba agsi fii màgg màggal gi nag feek agsi wut moom duñ mën a wax lu sotti waaye liñ gisagun dund ko ba bisub tey bi loolu moom wax dëgg yàlla lépp lépp itam rafet na wàllu Ageroute daal moom mm, moo des tuuti te dalal nañ sunu xel ci ne incha allah li ñu bëgg danañ ko li ci ëpp sax def nañ ko waaye des na nag biir dëkk bi ndax ni ñu ko waxee woon keroog rek biir dëkk fii moom dafay dëkku xur te nawet bii ñu wees xam nga macha allah taw bi bari na gas na fi lu bari ci biir dëkk bi ak yoon yi nag daa bokkoon ci liggéey bi te ba tey àggaguñ ci te xam ngeen ne gi daan ay bis rek ci des waaye nag dalal nañ suñu xel ne yu ci bari nañ ko day àggale daal li ñu diggee woon kon nag moom ñoom ñoo ngi nekk ba xam. ñi ci des ni ñu def danañ ko defam de te loolu mooy wax ba noppi jëfe wax ja dige ba noppi def ko eh, yeneen service yi macha allah douane macha moom mosuñu am ak ñoom benn benn jafe-jafe moom dig dig nañ ne taaliba yi nga xam ne dañuy ñëw te jóge jóge ci biir biir réew mi mbaa bitim réew ku ci indi loo xam ne jaadu na looy jëfandikoo la danañ ko wayafal ku ci def leneen nag ñun suñu yoon nekku ci ñoom ñoom ñoom la eh, wàllu santé moom itam xam nga ministre bi ñëwoon na fi bu yàggut euh, ñoo ngi sant bu baax am na yu bari yu mu fi xëy na rek garab yi liñ bëggoon lépp amuñu ko ndax bu bu liñ liñ bëggoon genn wàll gi lañ am ci ay garab waaye mottali na ko ci yeneen lu mel ne ambulance bu bees bi ak yi mel noonu euh, ak yokk nit ñi nga xam ne dañuy ñëw ak yi jàppandal yi ñu ci def fii ba Kaolack ba ci poste yi nga xam ne dañ koy def ci yoon yi loolu lépp wax dëgg yàlla ndimbal la loo xam ni boo garab yi mate wut itam <laughs> jàppale googu daan mat mat na ko man moom itam wàllu googu yi dafa defoon wàllu élevage rek wàllu yëpp ñoom it liñ liñ leen waxoon nañ ko def wàllu eaux et forêt nee nañ si yeneen kayit bi nga xam ne ci lañuy ñuy jële matt mi Tamba bu fekkee ne matt mi dana ñëw ren dana yombal itam matt yi nga xam ne ni ñu toggi rek la nit di ko jële ci euh, li li war dëkk bi di di ko di ko di ko indi Euh, kon daal bu ma bu ma fàttewut lépp am solo lu ma ci fàtte itam xam na nañ nañ xam loola solo si mu am moom la lii ma fàttewut am waaye daal wax dëgg yàlla fii nu toll bisub tey daal nga xam ne magal gi ay bis gi suñu xel dal na bu baax a baax macha allah wax dëgg yàlla li bëggoon lépp daal bu si fii euh, li li ci war a sotti sotti na li ci sotteegul ñi ngi ci kon nag sunu sunu njort bi noo ngi yeesal rek sunu cant ak ngërëm ci monsieur le gouverneur ci taxawaay bi nga xam ni am na ko ak takkute gi nga am nga xam ne moroom yi fi wees woon yëpp ñu yàlla daj yàlla def ñu dajeeg ñoom euh, lañ daan wane rek la waneen mbaalu ko ëpp kon nag noo ngi seen diggu ko gërëm di ko di sant suñu préfet bi nga xam ni it moom itam borom borom yitte la borom pas-pas la ak suñu sous-préfet waaye bàyyi bàyyiwuñ benn chef de service nag ndax euh, li ñuy wax rek armée moom boo amuti boo amuti soldat du armée bu ñu lu woon ak chef de service ak service yi kon duñ santante duñ gërëmante kon daal cant gépp ñoo ngi koy teg ci loxo di ko sant di ko gërëm di ko di ko ñaan mu àggale ko ci turu ñi nga xam ne ñoo ko ñoom ñoom la fi nekkal muy état bi gouvernement bi lépp nag ñu di ko def tur ak ndigalu Sëriñ Muntaxa mi nga xam ne mooy xalif général des mourides waaye mooy mooy mooy yëlif itam ak poroxaan mooy yëlif itam poroxaan te buñ ko waxee ci turam wax nañ ko ci turam mboolem murit yi mboolem jullit yi nga xam ne xam nañ xew-xew bi nga xam ne ci la màggal maam Jaara Buso euh, mu waajuru sëñ Tuubaa bi nga xam ne ab liggéeyam moo tax sëñ génnul ci may may gi nga xam ne sëñ Tuubaa am na ko te ni ñu koy waxee rek euh, ab liggéeyam dafa li lool la caa bokk waaye li ko yàlla faye loolu sëñ Tuubaa bokk na sëñ Tuubaa rek doy nag doog nag doy nag may doog doy nag pay waaye bu ci doolee nag bis boo xam ne benn jigéen amu ko ci li nu xam nun suñ xam xam-xam bu gàtt loolu wax dëgg yàlla liggéeyal yàlla rek ko jar moo tax loolu doon kàddu Serigne Bassirou Mbacke Poroxaan mi jiite comité d'organisation màggalu Poroxaan gi di fàttali rek ndaje mu doon noonu ko amal mu doon ndajeem xayma doon évaluation fa ñu toll ci wàllu wàccaay wi ndaje mi nag ñu ngi ko doon amal ci teewaay góornóoru Kaolack Ousmane Kane moom nag jot naa del si ci la nga xam ne kon moo di jotaay ba ak matuwaay yi nga xam ne kon jot nañu ko caa jël ak itam la nguur gi fas yéene rek taxawu lu jëm ci wàllu ko xew-xew boobu yi ñu fas yéene amal ñaari fan ci weeru février wi ñu dëgmal doon alxames bii di ñëw Ousmane Kane góornóoru Kaolack ñu teewlu ko ñeenteelu daje boo xamante ne administration daf ko am ak comité d'organisation bi parce que si fàttali CLD defoon nañ ko fi ak le sous-préfet def CDD ak le préfet def CRD ak gouverneur tey mooy ñeenteelu daje bi dafa nekk ndaje boo xamante ne dañ ko jagleel muy xayma li nga xamante ni administration taxawoon na de da koy def ginnaaw bi nga xamante ni comité d'organisation bi jébbal nañu ay bëgg-bëggam lépp pour dem si taaral màggal gi mu amee si amin bu rafet boo xamante ni dinañ si def ko si dugg si jàmm def ko si jàmm génn si si jàmm biñ ñëwee chaque chef de service jël nga kàddu wax nga ñu sa service la muy indi si màggal gi waa sécurité dégg na leen wax na ni xayma yu ñu fiy indi dispositif bi ñu fiy mettre en place ak logistique bi ñuy indi également defe naa liñ dégg dal na sunu xel su wàllu santé wér yaram tamit liñ fi dégg day na suñu xel si wàllu dispensaire yu ndaw yi nga xam ne dañ ko taxal mu toll si ñaar fukki dispensaire ak juróom lu bokkul ak li ñuy woowee structure de référence yu mel ni hôpital Kaolack yu mel ni centre de santé bi wala yu mel ni unité mobile bi nga xamante ni day jóge ministère de la santé ñëw ñu koy prépositionné au niveau du puits Mame Diarra si wàllu sapeur pompier également dinañ mobiliser lu ëpp 165 agent des pompiers téeméer ak fanweer ak juróom-benn ak juróom donc euh, yoo xamante ni dinañ ñëw fii si Porokhane mais également dinañ nekk si yoon yi ñaan ñu ko yàlla pour si accident amee ñu mën a intervenir très rapidement donc euh, assister accidenté yi. soo jëlee si wàllu Sénélec également dégg nañ euh, importance intervention bi ñu def donc pour. Euh, Porokhane am courant continue benn délestage benn panne bañ fi am si wàllu ndox mi également am na jéego yu ñu def yu ñu remarqué par rapport ak li ñu indi woon si camion citerne par rapport ak euh, màggal gi passé mais comme ndox mi moom dafa nekk yitte bu tara tar a fii si Porokhane ñoo ngi jéem a xalaataat intervention boobu ñu koy gën a yokkee ba duñ am problème mu ndox parce que lu mel ni li mu bâche à eau yi nga xam ñaar fukk ak juróom lañ si prévoir jàpp nañ ni dafa xaw a néew te su gis nañ ni bâche yu bëri du fonctionner donc loo tax ak le régional de l'hydraulique ñoo ngi xool ay pexe fexe ba lim bi dina yokk ba nga xamante ni bâche yi dinañ leen mën a utiliser mu servir li leen di doyee si wàllu assainissement également foofu li ñu doon xaar également des na tuuti si wàllu toilette mobile si wàllu camion vidange yi mais suba ñoo ngi prévoiraat beneen waxtaan ak waa ONAS pour xool mbir mi ñu koy gën a mën a tëggee ba nga xamante ni li ñuy xaar si ñoom si liggéey dinañ ko def euh, si wàllu aménagement yi également si Ageroute foofu tamit lañ jàpp ne ni muy doxee xaw na yéex mais je pense que à partir d'aujourd'hui ki fi toogal Ageroute dina ànd a comité bi ñu dem évaluer li nga xam des na si wàllu liggéey bi et rapidement ñu baral ko ba nga xamante ni balaa le deux ñetti fan avant màggal gi avant gan yi di ñëw donc yoon yooyu nit ñi dinañ si mën a jaar donc su ma jëlee quelques misaal donc si intervention chef de service loolu mooy solo liñ fi dajal tey ak liñ waxtaane si wàccaayu màggalu Porokhane force de défense de sécurité ñaari ñaar lañ si ràññeel la muy gendarmerie ak euh, GMI police donc si wàllu gendarmerie jàpp nañ ni lu tollook juróomi téeméer gendarme dinañ fi nekk si wàllu GMI euh, juróomi téeméer juróom benn téeméer dinañ fi nekk muy 600 donc ñoom ñoo fiy ñëw ñu tas leen entre Nioro ak euh, biir Proxaan n'est-ce donc loolu la ñuy xaar. loolu doon kàddu yu Ousmane Kane mooy góornóoru Kaolack doon dellusiwaat ci matuwaay yu fas yéene ko jël ngir màggalu Poroxaan di fàttali kon alxames bii di ñëw di ñaari fan ci weeru février lan ko fas yéene màggal jamono ji nag Poroxaan daanaka di sélé ba yoonu kilifa yi kenn ku ci nekk yaa ngi dem di fekk sëriñ bi foofee ngir rek amalu sa ziar bokk na ci ña fa demoon maître ma dikkee ñang moom nag ziar na xalif général di mu di sëriñ mu na ci euh, sëriñ euh, na ci soxna Baali Mbàkke Muntaxa bu foofu itam amal fa ab ziar fa yëkkati ma dikkee ña ci kanamu soxna Baali Mbàkke Muntaxa ñu teewlu ko. soxna si kat moom liggéeyal suñ tubaa rekk moo ko ñor ni la daal maa ngi lay gën ñaax nga jàpp bu baax ndax sa taxawaay si wetam dana tax lu mu bëgg jottali ak nam koy jottalee ba ñëpp dégg ko loolu dana ko yomb. kon lii nga wax léegi moom lay dëggal moom Cheikh Mountakha ka ñor waaye nag maamam ji di soxna jaara mu jël léppam jox ko bareen sax dafa def lu yéeme loo xam ni su ma koy xoolaat rekk laa laay xam ni dafa jeex tàkk ci soxna si bésu waajuram ba ba mu amee dafa ne man duma toog di ko defee Tuubaa lu may wër walla dara walla dara lenn loo xam ne day nuru loo xam day nuru mbiru àddina lu may def damay jël lépp xéewal yeeg yépp dem poroxaan bégal ko daara yi toog si wotu soxna jaara ñaanal foofu sama waajur sëñ Seybu loolu nag màndarga la at mu nekk dafay nekk coono goo xam ni soo gisee danga koy yërëm dana dem ba baat bi du mën jëkk du mën yëkkati du ko mën yëkkati kaw dana fekk booba mu tooy dana girip dana def lépp waaye du ko tax mukk mu tëdd nit ñi jàpp ni ku fi lekk na jàpp ni la fay lekk dafay ñëw teg si bëtam mooy dem fekk fan koy séddalee mooy dem fekk nan koy taxawoo ak nan koy joxe nit ñi kon moom wax dëgg yàlla boroom cër la boroom cër googu nag feeñ na ndax moom liggéeyam dafa fes goo xam ni ñépp a kaka nangul ñépp a xam ni sëñ Muntaxa nitu yàlla gu jeex takk la waaye ñépp xam ni taxawaayam si watu sëñ Muntaxa dafa nekk taxawaay boo xam ni li moo defar ni moo ni moo couleur mbirum sëriñ bi kenn xamul nan la toll kon moom li ma koy wax toujours rek gannaaw ba ma ñaanalee sëñ Muntaxa Muntaxa man su ma koy ñaanal damay tàllal yàlla xam nañ fu ma jullee eh, tàllal sama loxo ni yaa Cheikh Mat ba dama bëgg nga fasal mu Muntaxa jëbal ko yaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sunu borom si mayu koy yim la may si sa tukki géej gi sa tukki jéeri gi ay mag may yu rëy yim la may yëpp mu boole def kéemaan si dundu Cheikh Mountakha mu sut fan si askanam yëpp te wér te booba maa ngi xalaat soxna Asta Waalo am na téeméer xaw ma lan waaw yenn saa yi sax ma aalu ni ko defal ko téeméer ak fukk ak benn lu ko ëpp wér ak kàttan te fépp fu mu bëgg jëmale yoon wi mu àggale ko waaye moom nag toujours damay ñaan mu àndandoo ko ak sëriñ bi waaw Mbàkke ñun dañu bég si yow man li ma wax si kaw léegi ni man sëñ Tuubaa laa gëm sëñ Tuubaa laa yaakaar moom laa doyloo te sëñ Touba boobu laa gis ci yow sa alal sa lépp nga jël ko def ko sëñ Touba am na lu yéeme waa kër sëñ Muntaxa képp koo xam ni danga nga war jël soxna danga war ngénte dan la war taxaw doo dem doo xalaat dem si sëñ Muntaxa si moom mii ngay ñëw lépp moo ko defal waaw lépp moo koy def lépp moo koy def dama ñëw benn jour njaareem fekk si suuf soxna yi ñuy waaj affaire togg ñu wax ma ni ma ñun ñii de am na ñu ma feeñal su mbopp ñu ñii de sëriñ bi la dëkkaaleel waaye de soxna si rekk nu jaral lii ndax moo gën si ñun moo gën si suñu njaboot moo gën si ñun si lépp moo tax tey fàtte nañu ni dëkkaale noonu sëñ mu taxaa danoo doon fës yéene taalibe yu laxasu di ko defal lii xam nga ne loolu cër moo ko maye cër moo ko maye naam waajuram mooy sëñ bu mu am benn melokaan boo xam ni waa Kër Sëñ tubaay yëpp xam na ni moo ko si mel mooy féetewoog alxuraan féetewoog jukko ju rafet féetewoog toog loolu xam na ko waaye nag moom mi ngi koy dundal bu baax man de wax dëgg yàlla naw naa la si sa jëf naw naa la si sa taxawaay si sëñ Muntaxa naw naa la si jeex gi nga jeex sa maam soxna jaara waaye naw naa la si dimbali bi ngay dimbali nit ñi dimbali nit ñi nga dëkk foo toll man mi xam naa si dara foo toll yaa ngi may diis ay ay soxla yoo xam ne jëmul si kenn dul ay dimbali ay nit loolu nag euh, euh, euh, wax dëgg yàlla nekk na lu rëy si ñun su ma waxee damay wax ba tàyyi rek waaye li ëpp solo te ma la koy wax fu ma toll daal mooy bàyyee nan la ak sa maam soxna jaara mu jël sa mbir yépp jébbal ko sa maam Cheikh Mat Bamba jaara ki si sëñ Soyibu ba ngërëm li nga bëgg am yëpp sëñ Muntaxa foo toll ngërëm loolu di yokk te Cheikh Muntaxa yàgg fi lool nga yàgg si wetam loolu daal ñaan goo xam ni seedloo nanu soxna jaara mii nga xam ni moom laa bëgg tàggatool sama biir xol bii la génn sama biir xol bii la génn sama njaboot gi xam na nan nga toll si man loolu doon euh, kàddu yi maître Madické Niang ci euh, ziar bu doon na ko amal ci kanamu soxna Bali Mbàkke Muntaxa loolu nag ko amal ginnaaw ba mu jógee ci Serigne Muntaxa moom Serigne Bassirou euh, geneen kilifa gu magoon foofe ca Poroxaan doon ziar Serigne Muntaxa moom ci dellusiwaat ci sunu yeneen jotaayu xibaar 14h di ñaari ñu wéyandi. rajo. téeméer ak ñett yu tombal juróom rajo UCAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawoo ci ndaam daaro alimul xabir ñu wax ci lu soxal CDP bu Mbàkke doonu kuréel gu dafay taxaw rek àq ak yelleefu ka xale yi ñoom nag jamono yëpp ñu ngi wër gox goxaan yi démb nag ñu ngi woote woon ca Mbàkke am ndaje directeur u école yi lañ doon waxtaanal rawatina ci wàllum kayitu juddu jafe-jafe yi nga xam ne xale yi ña ngi koy jànkonteel ci wàllu seen ay kayitu juddu rawatina ñiy def examen ak lam leen di jural ci gàllankoor ak itam soññe bu yëkkati nu ko jëmee ko ci way juru ndongo yekke ñoom seen ngir ñu gën a farataal wutum kayit yi euh, inspecteur Ousmane Cissé moom nag moo teewal eh, IEF bu Mbàkke ca CDPE kàddu yi yëkkati na ko fa ñu àndandoo teewlu ko. Thierno Ndeye Fall nag chef de service départemental développement communautaire. maay inspecteur Ousmane Cissé di teewal eh, IEF de Mbàkke ci CDPE bu Mbàkke eh, dañu daje effectivement ak responsable CODEC yi mooy collectif des directeurs mais aussi ak CGE yi. pour waxtaan ak ñoom ci wàllu euh, déclaration de naissance ak euh, état civil de manière générale ndax dañu gis ni ci Sénégal de manière générale euh, ñàkk déclaré xale yi pour ñu am kayitu juddu dafa fës rawatina nag ci département Mbacké école nag dafa nekk bërëb boo xamante ne loolu mën nañ ko gis ndax ci xayma yi gis nañ ni entre deux mille seize deux mille dix huit ba deux mille vingt sax euh, bu ñu xoolee xale yi nga xamante ne inscrire nañ leen école te amuñu kayitu juddu dañoo bëri loolu nag mu indi taxaw seetlu ndax ku ne xam na ni xale yi bu ñu jàngee ba yegg ci examen war a def CFEE ak entrée en sixième dañ leen di laaj kayitu juddu te léeg-léeg ñu ko am bu ko defee dañuy obligé di def ay audience foraine loolu nag moo tax ñu ne nañu dajaloo encore ak acteurs yooyu de premier plan waxtaan ak ñoom bu ko defee ñu xool yan dispositif lañuy teg ba nga xamante ni dinañu mën a euh, saytu xale yi amul kayitu juddu ci école yi mais teel la jël ay matuwaay ba fexe ñu am ay kayitu juddu état civil yi moom seen rôle mooy euh, ñoom aussi ñu bokk ci sensibilisation bi daf naa atelier bi ñu def nii def nañ ko ak ñoom pour ñoom aussi ñu xam lan mooy seen rôle dëgg dëgg ak ban taxawaay la ñu war a am ci côté boobu donc li ñuy xaati ñoom rek mooy euh, ñu yombalal enregistrement à la naissance parents yi mais aussi yombalal ko école yi surtout ci cadre audience foraine yi parce que ñun bu fekkee xale bi toog na lu yàgg amul kayitu juddu euh, li ñuy def mooy directeurs yi ak parents d'élèves yi dañuy lëkkaloo ak euh, service état civil mais aussi ak tribunal euh, pour yombalal këyit yi ndax xale yi mën a def examen foofu nag ñu ci profité sax au nom de di remercier président tribunal ndax wax dëgg yàlla ku ñuy jàppale la ci fànn boobu. volet 1 bi wax nañ ci di wane solo mu am ndax képp nga xamante ni dem nga déclarer sa doom. booy jógee tribunal dafa nekk kayit boo xam ne moom nga war a yóbbaale nga xam dañ la koy jox gratuitement doo ci fay dara loolu nag day baax euh, parents yi ñu xam ko bu baax a baax a baax a baax en plus du volet 1 e nag am na aussi extrait mën nga mën nañ la defal extrait mën nañ la defal bulletin mën nañ la defal aussi copie littérale mais lii gën a am solo mooy population yi xam ni volet un moom dañ ko war a yóbbaale ca kër ga bu ñu ñëwee déclaré xale yi. loolu doon kàddu yi inspecteur Ousmane Cissé ki jiite kuréel gi nga xam ne kon moo di service développement communautaire ci département bu Mbacké Thiendella Fall moom nag jot naa dellu si ci njariñal këyit ak taxawaay bu war naan ko caa taxaw rek gën a jàppandal xale yi seen aw nekkin bindu mi mu ne lu am solo la te war nañ caa a bàyyi xel këyit nag ñàkk ko mën naa indee gàllankoor yu ne ci li nga xam kon moom moo di askan wi rawatina ñi nga xam ne kon ñoom ñooy xale yi mu ne nag daanaka këyit boo ko amul ngir ñu boole la ci dara lu jafe foofee lay doon Thiendella Fall mi chef service départemental bu développement communautaire ñu dellu ko ba tey ci micro Moustapha Ndiaye. Thiendella Fall nag service départemental développement communautaire di coordonner aussi ak activité CDP bi. CDP nag boo ko déggee mooy benn kuréel la buy xeex ak ak yelleeku tout tànk yi li ko jëlee xale buy soog a judd ba am fukki at ak euh, juróom-ñaar kuréel googu nag préfet mooy moo ko jiite euh, ñu toftal ci président conseil départemental ñëpp nag bokk ci muy maire yi muy sous préfet yi muy service technique yi nga xam ni dañuy liggéey ci wàllu xale comme lu mel ni éducation lu mel ni action sociale ay moo yaatu na daal ñoo ñoo doon tase fii tey ci Mbàkke ak euh, acteur éducation maanaam ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu njàng ak njàngale muy inspecteurs yi ak euh, directeur d'école yi ak association parents d'élèves yi ak comité de gestion école yi pour waxtaane mbiru xale yi nga xamante ni ñu ngi école te amuñu kayit juddu xam nga loolu nag buñ ko waxee day xaw a jaaxal nit ñi mais xale bi bu jotee dugg école rek autorité dañuy nangu mu ñëw même bu amagul kayit bu demee nag ba war a def examen wala laata muy def examen ñu fexe nu mu amee kayit mais kayit nag nakkul ne noo jóg rek wute ko na moo tax nag tey ñu ñu daje pour waxtaane yan pexe ak yan doxalin lañ ci mën a def ba xale yooyu am ay kayit ci ni mu ware parce que mbiru kayit dafa nekk loo xam ni euh, mënul ñàkk ci doomi aadama parce que ala kuli àll ak nu mën di demee rek di nga ko mës soxla ji waaw balaa booba nag ñu ñu kii mais loolu yëpp li ko waral nag mooy euh, xale yi dañ dul dañ leen dul teel a déclaré ca mairie ba wala ca chef de village ba wala ca hôpital ba bu ñu juddoo rek dañ leen war a déclaré laata ngénte li sax da nga war a dem déclaré ko boo ngénte ba pare nga dem nag ñu enregistré ko ci état civil ba mu am ay kayit parce que kayit baax na mais biñ teel a def lañ taamu parce que bu weesoo at rek day indi beneen jafe-jafe liñ naa jugement maanaam yoon da ci am kii tribunal da ci am yoon il faut nga dem tribunal yéeg ci dugg génn boo amul chance taseeg ab samba booy bu la ne indil ma wutal la ko boo ma fay juróomi junni wala juróom benn wala fukki junni sax ma wutal la ko fekk na lam lay wutal yëpp dara baaxu ci kon kay la nga def ci ngénte li ay juróom benn fukki junni ay ñeent fukki junni am na sax ñuy def un million waaw loolu kay nga nga génnee ci trois cent francs rek la ko am kayit yu wóor te baax moo gën mais jigéen yi moom bu ñu amee doom la ñuy njëkk a xalaat mooy suma natt ba suma ndawtal ya ak yeneen ak yeneen alors que natt boobu ak ndawtal boobu xale bi bu juddu loon doo ko am xale bi yow yére ngay sol greffage ba ngay sol or ba añ yu neex yaag ceeb yu neex yaag laax ya moom yoonam newu ci pasu du ko lekk yéen yéen ay yéen ay noos mais moom xale bi yëgul wàllam ci ngéntal nag ak wallam ci feet bi mooy nga dem wutal ko këyit loolu am solo léegi sax koo xam ni liñ naa anniversaire xale day juddu bés ba mu juddoo dellu si amagul këyit sa yow nga da nga koy defal ay anniversaire di dépenser xaay bu dul jeex balaa boo koy nga jël juróom-benn fukk dem mairie ba ñu ñu ñu kii ko donc yu mel noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen jafe-jafe yi muy indi du ci élèves yi rek ah du ci élèves yi parce que ci ndongo daara yi ku dem daara ba wàcc mais yow nga commencer. liggéey wala nga defi beneen njàng wala nga dem tukki sax mais mënoo tukki te amoo kayit mënoo liggéey te amoo kayit parce que soo waree jaay sax dinañ la laaj euh, registre de commerce wala ñu laaj la ay yeneen ak yeneen ay patente ay NINEA tout ça te yooyu mënoo koo am te amoo kayit kon kay yow teel ko wut rek nga xam ne jafe-jafe la boo xam ne doo ci dellusiwaat waaw lii daal mooy solos ndaje li mais rawatin nag mu dem ci wàllu école daal parce que dañu seetlu ni ci école yi xale yu bëri dañuy dem ba war a def examen seen waajur yi dinañu yéeg wàcc directeur d'école yi dinañ leen jàppale li ñu mën inspecteur dina yéeg wàcc gis président tribunal pour audience foraine te audience foraine du obligation privilège la rek maanaam dañ leen koy euh, jàppale rek xam ne ñii kat situation bi xam na dee waar nañ kii mais du dëkk dinañ toll foo xam ne audience foraine day dàkk waaw su audience foraine jékkee jékkee rek ñu génnee benn loi ne audience foraine amatul kon ku mosuloon am kayit yow dootoo amati ilaa abadan te su boobaa itam yaa ngi dégg dootoo bokkati ci société bi parce que amoo benn màndarga bu lay xàmmee ku ñu xamul nag kenn du ko boole ci lenn. loolu doon kàddu yi Thiendella Fall chef service développement communautaire ci département bu Mbacké. ndaje ndajeemu wala bokk dox boo xam ne kon ñu ngi koy amal te njaareem mu doon euh, ab caravane de sensibilisation ab dox la bu dañuy ñaax soxna yi ngir rek ñu gën a farataal nemme ko seen wàllu wér-gu-yaram rawatina ci lii di cancer col de l'utérus waaye itam lu jëm ci ñàkk yi nga xam ne kon moom la ñuy amal loole nag euh, jamono ji nga xam ne ko ca loon nag waa njaareem ñoom ñooy amale lu jëm ci wàllu ko wu ni mel incha allahu rabbi ñi ngi doon taaxirlu Moustapha Ndiaye jàppandewul incha allah danañu ci del siwaat beneen jotaay bu ñu ngi ko doon amal muy CDD ci Mbàkke lañ doon waxtaane mooy mi doon couverture universelle maladie bi nga xam ne kon ñu ngi koy amal euh, loolee nag euh, mu doon jotaay boo xam ne kon dañ cay waxtaan rek jëm na ci naka lay ma def ba gën a jàppandal li nga xam ne kon moom moo di euh, askan wi ak seenu taxawaay ci wàllum paj mbokk yi ni ko baaxu alxames bu jot alxames transport Pape Seck xam naa nekk ci ay yitte moo tax jamono yëpp jàppandiwul ñu jokk yenn ci yu fi jotoon jaar alxames transport bu moom la defaloon ni ki euh, alxames ñaar fukk ak euh, juróom benn fan ci weeruk euh, janvier atum deux mille vingt deux kon ba mu defaloon ci deux mille vingt deux boobee nga xam ne kon moom doon waxtaanee lu jëm ci autoroute Ila Touba bi rawatina balisage accident naka nga war a def ba rek gën a mën wàññi jéyee ca mën a amaat loole la doon waxtaanee alxames transport Pape alxemisi transport ak Pape Seck jërë ngeen jëf yéen suñu mbokk yi nga xam ne yéen a baaxoo déglu seen rubrique transport bi ñu leen di defal alxames bu nekk fii ci UCAB FM 103.5 ki leen koy defal di seen mbokk Pape Seck code de la fàllu président Fallou président Fadilou prévention routière du Sénégal yoonu jàmm mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di leen balu àq di leen ko baal di ñaan itam sama kàddu fekk leen ci jàmm yéen ñëpp di ñaanal bu baax Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général du Mouride fan wu gudd lool ak wér noonu itam lañ koy ñaanale Serigne Sidi Mbacké xalifa Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem kilifa diine yépp taalibe yépp ak sunu mbokki dong yépp di leen ñaanal itam sunu borom jàppandal leen ngërëmal seen wajur yu baax ya ak seen maam Serigne Touba Cheikh Al Khadim sunu yaakaar tey ak ëllëg mbokk yi seen rubrique transport tey dañ koy jëmale rek ci autoroute Ila Touba ak accident yu bari yi nga xam ne moo ci xew te li koy sabab di yéex a baliser oto yi nga xam ne ñooy paan ci kaw autoroute bi ak ñàkk am balisage bu baax kon dañuy njëkk a leeral mbokk yi lan mooy balisage balisage nag bu ngeen ko déggee mooy def ay màndarga yoo xam ne dina tax képp ku jaar ci autoroute bi mu mën a xam ne leekat oto bu paan la njëkke ko ci taal li nga xam ne mooy feu de détresse am ñu ko wax signal danger ak teg li nga xam ne mooy triangle présignalisation di ko wax triangle kon ni nga xam ne moom la ñu war a nekk ci autoroute boo paanee ci la ñuy ñëw ak yéen li ci njëkk nag autoroute boo ci jaaree boo paanee da ngay taxaw ci xàll wi nga xam ne moo féete ndejoor ndax autoroute bi ñetti xàll la ñaari xàll yi pour circulation bu continue la xàll wi nga xam ne moo féete ndejoor xàll la woo xam ne dañ ko jagleel oto yu paan kon boo paanee dan na la droiteel ci xàll woowu taal sa signal danger boo amee gilet nga sol ko rawatina bu dee guddi nga sol ko wàcc ak sa ñaari triangle rouge wala sa benn triangle rouge ndax sens unique la bu ko defee nga dox ay jéego yu takku ci ginnaaw oto bi mën naa nekk sax ba 100 mètres ndax li oto yi daw dafa bari nga teg benn triangle rouge ngir oto yi teel koo gis boo jugee ci loolu itam ci saase wooteel ci numéro bi nga xam ne boo ci wootee di nga jot waa oto autoroute bi bu ko defee itam xamal leen ne man dama yor oto mu paan maa ngi bërëb sàngam bu ko defee ñoom ca saase nag la leen war mooy ñu ñëw indi seen ay cône de signalisation cône de signalisation mooy loolu ngeen di gis ñu koy teg mu am ay rëdd yu xong ak yu weex daal di koy wërale oto bi ba mu daj ngir ñii ñëw man koo moytu ñu seetlu nag ne autoroute Ila Touba balisage bi dafa des ndax li tax dafa des mooy lu toll ni camion bu paanee ci autoroute balisage bi war naa ëpp teg ay cône de signalisation waaye gis na ne ay cône de signalisation rek la ñuy baliser oto yëpp mooy oto bu ndaw ak oto bu mag beneen bi ki topp itam dañuy yéex a baliser li nga xam ne mooy camion yu paan yi xamuñu nag ñi ñiy paan ci kaw autoroute bi ñoom ñoo dul woote wala ñoo yeex a woote wala ñoo dul xam numéro bi ñuy woote wala service yi nga xam ne ñoo yor loolu ñooy négliger ba nga xam ne baliser oto yi paan yi euh, dafay yeex balisage bi itam gis ngeen ne baaxul kon nag ñi ngi ñaan suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jaar ci autoroute bi yépp ñu xam ne autoroute niñ ciy nekk ak ni lekk nekk ci route à double sens bokkul boo paanee gaawal taal sa feu de détresse droite teg sa signal euh, sa sa triangle rouge te woote ñu ñaan itam képp koo xam ne yaa ngi jaar ci autoroute bi itam rawatina guddi ngeen di daw ndànk ndax autoroute bi sécurité bi nga xam ne moo ci war a am mu méngoog autoroute amul ci autoroute Ila Touba na ngeen ci bàyyi xel ñu sant ñëpp gërëm ñëpp di leen wax euh, ba beneen alxames ñu ngi yéen ci seen beneen rubrique transport jërë ngeen jëf. alxemisi transport ak Pape Seck. Pape Seck ñu koy sant di ko gërëm incha allah rabi di ko joxaat daje beneen alxemes ci beneen ponk bi danañ leen ko tollanti waatal ci sunu xibaaru guddi gi. egsi noonu ak yéen ci ponk bi këmmal jotaay bi mbokk yi mu doon li gën a fës ci yéenekaay yi ñu leen koy nafaral. UCAB FM. li bis. simil ndajeem jam ñaajo mi ñu doon waxtaane lu jëm ci wàllu ko dund gi naka la man def moo doon dalal lu jëm ci wàllu ko ndaje mi ñu tuddee Dakar 2 mu doon ndajeemu ko ñoo ko financé àndandoo ak nguuru Sénégal ak Union africaine yéen kaay bi xëy di xamal ne àllarba ca jam ñaajo la ñu tàmbali ko waxtaan woowu lay doon naka lañ man def ba mën gën a jàppandi ci Afrique ak ñi xam ñoom ñoo di askan wi loolee moom lañ ca doon waxtaane yéenekaay bi xëy di xam le na njiitu réew président Macky Sall mi jiite Union africaine yëkkati na ci ay kàddu ne nag lu jëm ci wàllu ko dund gi moom ngir mu mën a jàppandi faaw rek yu bëri danañ ca bàyyi xel mooy rek fexe ba gën a tàggat ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di askan waaye itam ñu gën a jàppandal mbay mi ak taxawu askan wi ci leneen loo xam ne kon jëm ci wàllu ko dund gi yéenekaay bi xëy di xamal ne jamono ju ña ngay waxtaan lu jëm ci wàllu ko dund gi ci Ndakaaru lii di ci conseil jafe le quotidien yéen kaay moo xëy di xam la ne Afrique rawatina réewum Sénégal bëri na si ñoo xam ne kon dund jafe na leen lool ndax nag méttiwaay boo xam ne kon jamono métti na ko réewum Sénégal campagne agricole bi nga xam ne moo di 2021 2022 su naataangoo ñoo xëy di xam le ne bu dee taw bi moom naam nag bëri na lool ndox mi waaye nag ci loolee terewul nag li nga xam ne kon moom la ñu jëlee ci wàllu ko mbay mi néew na lool yéenekaay bi xëy di xamal rek na bëri na ay département yu nekk ci biir réewum Sénégal daanaka nag lanu bay lu néew la ngir rek mën a am loo xam ne kon lu ñu dund ak jafe-jafe la su naataangoo yi xëy di xamal nekke deltu ginnaaw gi nga xam ne kon mbay mi deltu na ko ginnaaw lool lay sabab sa nag kenn ku ci ne yaa ngi ci indi sa xalaat ak sa gis-gis su naataangoo yi xëy di xamal nekkay daanaka bu ñu koy xool continent bu Afrique moom téeméer boo jël ñeen fukk ak ci téeméer boo jël ñeen fukk ya ci seen wàllu mbay dañu koy ñàkk yéen kaay bi xëy di le a dundal moom war na noo bàyyi xel bu baax a baax bi nga xam ne kon joxe ko ci yéen kaay di le ne kilifa yi nag ña ngay jéem wut saafara ci lu jëm ci wàllu ko dund gi naka a mën ko jëggaani loole war a mën a toppatoo ba nga xam ne kon moom moo di baykat

moom la ni xaar lu si juróom benn junni ci ay milliards yoo xam ne la mu ci jublu rek mooy fexe rek ba dund gi mën a jàppandi ci continent bu Afrique yéeni kaay ba tey di xam la ne jafe-jafe yoo xam ne kon ñu bëri ci askan ñu ko ci dund Walfadjri quotidien moom ma ngay xam ne rek ne président Macky saal nee na lu jëm ci wàllu ko taxawaay bi nga xam ne kon moom lañ nemmee ko ci lii nga xam kon moom moo di atuatekaay yi ak ni anam bi nga xam ne kon ñenn ñi nag ñoom lañu taxaw rek jatu ngir defante ak ñoom yéenekaay bi xëy di xamal nag président Macky Sall moom nag jamono ji taxaw na temm rek ngir gettarul ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di attekat yi ngir rek ñu jox leen seen cër seen gëdd su naataango yi xëy di xama rek ne jamono ji xam ne kon moom lañu toll ci atum 2012 2012 ba fi mu toll nii lu jëm ci wàllug indépendance justice ñu bëri nag ña nga ca doon wax waaye nag fi mu toll nii de yéenekaay bi bi moo a xëy di xamal ne lii kenn jar na def ab taxaw taxaw seetlu ñu xool dëgg-dëgg rek lan moo dox ci diggante askan wi ak lii attaque bi lu wàl fajiri quotidien ba tey ma nga ca wàllu wi di xam le rek ne moom wax ji wax ji nanu ko wax mooy rek justice bi moom mooy doxe doxin woo xam ne kon moo teeloo xelu ñu bëri bëri ndax justice noonu lay doxale yéen kaay bi xëy di xam la rek ne fekkante ni si ña ngay aar ak wegg-weggal ñenn si ñi nga xam ne kon danoo jege ñi jiite réew mi am na ñeneen ñoo xam kon daanaka a leen sëkkatal yéeni kaay bi xëy di xamal ne am na benn alliance boo xam ne kon ñu ngi ko tuddee APR PDS yéeni kaay bi xëy di xamal ne loolu nag ñu bari fi mu toll ñu ngi koy séentu parti démocratique sénégalais ak APR yéeni kaay bi di tribune ne bis bu ñu xëyee gis rek ne ñoom ànd nañu di bokk ci wàllu ko jogante yi xam ko ñu ngi koy séentu bu mu bett kenn su naataango yi xëy di xamal ne luñ ci mën di nemeeku ginnaaw ba nga xam ne APR ñoom ñoo wàcce waa PDS 2012 fi mu toll nii seen ànd moom xeeñ na lool jëm ci wàllu ko jongante présidentielle 2024 yi nga xam ne kon moom la ñu séentu yéene kaay yu bëri ba tey ña nga ca dellusiwaat ci lëkkaloo goo xam ne ñu bëri bëri daanaka ko ñu bëri bëri ña nga dox su naataango xëy di xamal ne la ko yombal nag bokk na ca ñu bëri bëri nee nañu kii njiitu réew président Macky Sall gisee goo xam ne gisee woon na ko ak kii di Karim Wade ca Qatar ci jamono coupe du monde de football bi nga xam ne kon doon na ko fa amal ba tey yéen kaay bi del si na rek ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram ak mbër yi nekk ci biir réewum Sénégal ak seen ay njiit yéen kaay bi moo xëy di xamal ne nag mbir mi fi mu toll ni doon tollaay politique réew mi jamono ji ñu ngi ci yëkk si ay kaddu di wax ba tey yéen kaay bi xëy di xamal nag ne fi mu toll nii ñoom taxaw nañu tem ngir daal lépp loo xam ne kon mooy indi jàmm ci biir réew mi ñu mën caa dox vox populi yéen bi xëy di xamal rek ne tontu ba amal na ca jëm ci wàllu ko atte bi war nañu ko caa atte ne nag loolee moom taxawaay bu war na ko caa taxaw ne du wuy ji benn yoon l'observateur yéen kaay ba tey ne kon eh, gis nañu ko ci moom ki nga xam ne kon moom di Ousmane Sonko nekk ci eh, contrôle judiciaire daanaka lu jege ñaari at a ngi nii yéen kaay bi eh, xëy di xamal nag ne fi mu toll ni nag ci ab xeex dëggantaan la nekk ngir rek mën a moom boppam ci lu jëm ci wàllu woolee su naataango yi nag xëy samp ci ab laaj ne nag li nga xam ne mooy kàddu yi ma ngi ko cay yëkkati moom Ousmane Sonko ndax kàddu yi kàddu yi jàmbaar la waaye wala kàddu yi koo xam ne kon kuy xaru la yéen kaay bi nag xëy def ci ab taxaw seetlu ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu ko bi ba tey sunu naataango yi ña nga ca di bés la leen ñor bokk na ca élection yi nga xam ne kon ñu ngi koy waajal muy yeneen jongante yoo xam ne kon ñii di syndicat jàngalekat yi ñoom ñoo ci war a sóobu ci diggante juróom benn fan jàpp juróom-ñeenti fan ci weeru mars 2023 muy élection représentativité doon xool lu jëm ci wàllu ko kan moo ci doole kan moo ci ëpp mbooloo yéenekaay bi xëy di xamal ne loole dana mën a tax li nga xam kon moom a xam dëgg-dëgg bu war a waxtaan ak ñii di syndicat yi a xam syndicat bu ci ne lan mooy doy waayam moo jëm ci wàllu feebar boo xam ne kon fi mu toll nii sonal lool réew réewum Sénégal te nag ñu bëri bàyyiwuñ ca xel mooy tension bu yëg yéenekaay bi xëy di xamal ne hypertension artérielle loole nag doon na jàngoro joo xam ne kon ñu bëri ñu moom lañu dem na ca Kër Massar fekk fa waa ak lu jëm ci wàllu ko ñoo xam ne kon dañ doon defar ay médicament doon garab yoo xam ne kon dara baaxu ca yéenekaay bi xëy di xamal ne def ko te ñaawteef yooyu teg nañ leen loxo Dakaractu point com moom delsi na ci audience bi nga xam ne kon xalifa général bu Medina Baye doon na ko dem ci ci pale présidentiel doon gisee njiitu réew mi yénn kaay bi xëy di xamal ne génn ba nga xam ne kon génn na ko fa day coow la bëri na ca lool ndax kenn ku ci ne yaa ngay wax lu jëm ci wàllu ko pale ba ak la nga xam ne kon waxtaan nañu ko fa kenn nag ci njabootu xalif ba moom jot naa génn waxtaan ci li nga xam ne kon moo jëm ci wàllu audience boobu moom kenn ci doomi xalif général di Baye fa di xalif général bu Medina Baye moom nag ma nga yëkkati li nga xam ne kon moom ma di ay kàddoom di xam le ne way juróom wu góor dafa demoon ca ba ngir waxtaan ak njiitu réew mi eh, ay liggéey yu mag yoo xam ne kon jamono ji ñu ngi koy waajal foofu lay ci Kaolack loole dong mooy li nga xam ne kon moo sababu audience ba waaye leneen li nga xam ne kon ñoo ngi ko cay wax daanaka loolee dara amu ca accident bi amoon ca sàkkal igfm point sn xëy na ñu ca xamal rek ne kii di borom oto Njaga Njaay ba moom nag fi mu toll ni teg nañu ko loxo yéen kaay bi xëy di xamal ne démb ci àllarba ji eh, ci enquête bi xam ne kon moom lañ doon amal rek ca lañ ko tege loxo ñi nga kon ñoom ñoo di sëfoor yi doon sëfoor Njaga Njaay bi moom itam a jël ji topp ko ca yéenekaay bi moo xëy dinu ko ca nettali e média point sn su naataango yi nekk ci internet bi jamono ji ma nga ca TDS ak ki nga xam ne moom la ko dénk yéen kaay bi xëy di xam le jël na lenge ya ne lu jëm ci wàllu TNT bi bi a e ak Sadio mi nga xam ne kon taskatu xibaar yi moom la ñu ngir rek moo doon footballkat bi gën a ràññeeku ci atum 2022 e média point sn yéen kaay bi nekk ci internet bi nekkoon bi mooy juróom ñaari yoon yoo xam kon na footballkat bi gën a ràññeeku ci biir réewum Sénégal mbokk yi kay yëngu dig di jëlëg incha UCAB FM li gën a ci yéene kay Papa Saer Mbaye yi fii si UCAB FM Papa Saer Mbaye mbokk yi ñu sant leen gërëm leen les firu sonte xibaar ñu leen ko doon jottali Pape Saer Mbaye farawoon ci àddukaay gi machine ba Cheikh Beye yéen askan ci déglu bi laataa ñuy tàggoo ñu fàttali leen la ca gënoon a fës groupe de la gënoon a fës ci xibaar yi bokk na ca màggalu poroxaan gu bis ni ki tey lañ ko fa ñu a diggee lu amalu ziar bokk na si ñoom maître Mati Kiñang ma nga ca xalif général des Mourides ba mu ca jógee

kon jigéen yi sage-femme ya ci njaareem ñoo koy amal ngir rek gën a soññi soxna yi ñu gën a farataal lu jëm ci saytu seen wàllu wér geen rawatina col de l'utérus cancer ba loolu nag ñu ngi doon taaxar Moustapha Ndiaye jàpp nu incha allah danañu ci dellusiwaat alxamis transport Pape Seck lañ ci doon àndal tey autoroute Ila Touba bi la doon waxtaanal ak balisage bañ ca war a def saa bu wala boo ko panne amee waaye itam lu jëm ci tëj jotaay bi kon li gën a fës la ñu leen ko doon nafaral Pape Sayer Mbaye farawoon ci àddukaay gi machine bi Cheikh Bey yéen askan wi ci déglu bi rajo UCAB ngeen ko doon déglu 103.5 ci bande FM bi di téeméer ak ñett yu tombal juróom internet bi ñett w point a2 itv net wala ñett w point sunu fm point com yeneen xibaar incha allah rabi guddi lay doon 20 heures rédaction bi di leen ci jox daje ci kanam tuuti 17 heures seen émission njàng mi Oustaz Abdou Diouf ak euh, ñi àndal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp bur law moom jàmm te ku mu jàmmal ngam jàmm yàlla na nu defal kendalu jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi ñu sant leen gërëm leen di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu bopp ñu bàyyi leen ngeen wéy ay programme waxtaanu Serigne Sam mbay moo ci topp